la yàlla génne ruuga Tuuba yóbbu ko barsak mu dend ak Bàmba ruuya fa nekkoon keroog yëpp amaare di teru ruugay soqi tay xawaare barsak jël na waagu am ja teraanga moo nuy fegal te yaraanga barsaq jël waaju la ko xam-xam mësula def itteem ci sakku baam barsaq jël waaju am ja maqaama ba faw kuy borom maqaama kooku nag di sëriñ Mbàkke Muhammad yàlla dogal mu mag ci njabootu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma jëkk koo wuutu gannaawam fa mag ña bàyyi ko rek foofu la bàyyi ko ci ak bokk te loolu dafay loo loo am solo moom nag ci kokki la bokk li fa mag ña bokke ak ndaam moom soxna Lo Diop la waajuram wu jigéen tudd soxna loo Diop moom yi sëñ Mor Jànd moo ko jur Mor Jànd Masamba Gàdd sàmba Gàdd ndaaga ko jur ndaag ak xarimaam ak Mariam ak Penda Buya ak Samba Aminta ñoo bokk ndey ak bàyyi njaga Isaa leen jur moom waxtaan ci lu jafe la donte lu yomb la mm-hmm. lu jafe la ndaxte ñim jaxasool ni ma ko waxee ci njëlbeen dañoo bari te ku nekk jëflante na ak yow jëflanteeg biir ak jëflanteeg bitti te buñ nee ñu ngi waxtaan ci moom ku ne da ngay toog di déglu la nga jàpp ne moo ëpp solo ci lu mu jëflanteeg yow wala loo xam mu jëflante kook nit te mën naa am loola mën nañ ko bañ a dégg ci waxtaan wi loolu mooy jafe gi yomb na nag. ndax it ab jullit la woon ab bi la woon nitug diine la woon te as gor la woon soo xam ne lépp luy jikko yu baax lépp luy jikko yu rafet lépp luy jikko yu ñu tànn yu ñu gërëm yu sun borom joxoñ ngir ab jullit war ne mel melokaan yooyu meloon na ni. sëñ Mbacke soxna loolu nag euh, dafa nekk nit koo xam ne euh, waxtaane ko dafa yomb ndax waxtaane nit ku baax. Euh, dafa yomb euh, sëñ Mbacke Soxna nag mooy kenn ku ne xam na ne euh, ku tedd gi Cheikhul Khadim yàlla na ko yàlla fayal mu ngi fi jóge 1927 sëñ Mbacke Soxna Lo mi ngi gane àdduna 1934 nga xam ne kon da ngay xool diggante 1927 ak 1934 sept ans la kon sëñ Mbacke Soxna Lo bi muy feeñ ci àdduna fekk na fi ak sëñ Tuubaa yëpp ñi fi sëñ bàyyi woon ñëpp fekk na leen fi ndax sept ans la nga xam ne kon bi muy feeñ ci àdduna moom euh, ak bi fi sëriñ bi jógee juróom-ñaari at la kon moom dafay fekk ay kàngam yoo xam ne kàngami sëñ Tuubaa lañu ñu woon yu àndoon ak sëñ Moodu mu doonoon ku ab jës yaatu lool xalaat bëggal ñëpp jàmm yéene leen ko te di ko sàkku jamono ju ne euh, damay wax ne moom ay jataayam wala ay nekkuwaayam daawi fu daawi su fa xàmmee kii diwa sëriñam walla kii ci tarixa sàngam la bokk wala sax kii ab jullit walla du ab jullit la muy séen ci yow di ko xool mooy bind gi la borom bind nga nuroo ak yonent bi sallallahu alayhi te daf ko bëggoon lool dafa am benn doomam bu mu doon joxe muy jàngi alxuraan dam ko doon jox ba mu ñëwee da ko ne kii day muhammadu rasulillahi laa ko tudde li tax ma jox la ko nag mooy dama bëgg mu bari xam-xam ndax dama bëgg lool ka ma ko tudde waaye kere bañ koy denc tamit sëñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba tey yal na ko suñu borom yàggal te wéral ko seede yam seede ci moom doy na ngir ne moom kat ku bëgg yonent bi la gannaaw bi ñu ko dencee ba noppi dafa am bis sëriñ Cheikh Mbacke ànd ak sëriñ Mbacke soxna loo indi ko ci sëriñ Basirou ne ko kii day mooy sama taaw sëriñ Mbàkke la tudd damaa bëgg nga ñaanal ko ne ko nag mboolem jikko yu nekk ci yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ci moom nee na loolu loolu la sëriñ Cheikh seere ci kanam sëñ Basiiru ci sëriñ Mbàkke Soxna Lo mi nga xam ne moo di taawam. mi ngi feeñ itam ci 1934 moom la feeñ ci Nayda Mbàkke Nayda di dëkk boo xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko sanc doon fa liggéeyal yàlla. ginnaaw bi mu dël fa sëñ Cheikh ginnaaw bu am njàngam mate foofu la sëñ Mouhamed gane àdduna ñu jaarale ko itam fi ñuy jaarale nit ku baax fi ñuy jaarale doomi soxna mooy jàngal ko ba mu xam yaral ko ay cëram tàggatal ko ba mu nangoo jaamu yàlla moo tax muy wax ni fa sun borom joxoñoon rek foofu la teg tànkam te mooy wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu foofa la teg tànkam. sama diggante ak moom nga xamante ne bi bu ñëpp ma sant di ko séntu maanaam bu ma séenee may ñëw ñëpp defarwaat ñu sëñ Bango te bu may ñëw damay fecc. Euh, loolu man maa ko ci jublu woon maa ko ñaanoon ndigal itam ba ko. Euh, li ma ci jublu woon itam mooy bët yi nga xamante ne bi ñooy bët yu bon yi ak làmmiñ yi yëpp ma tegoo ko. waaw ñaan ko ni ko loola dara dal lu ne yàlla ma dal bëgg gu ma ko bëgg. Mhm. Euh, ndax moom dafa bëgg lu mhm. waaw ndax yaakaaruñ ko ba pare mu yàjjaaral ba ñëpp ñëpp raw ko mhm. waaw yaakaaruñ ko ba pare mu des ginnaaw mhm. man gàcce rek laa ragal te suma koo teg waaw kon euh, awma lul sama bopp awma lul sama jëmm awma lul sama ruu ba ma ba ma sëñ Abdou Lahad ma war a liggéey ma ñëw ne ko man ko sëñ bi dama bëgg sëñ bi dama wàcce dama bëggoon liggéey mm. mu ne ma seetal loo bëgg a liggéey nga wax ma ko ma jàppale la ci ne ko man daa bëggoon tukki dem Gabon mu ne waaw kon damay dem Maroc suba waaye na nga ñett fan laa fay def na nga ñëw Dakaaru soo ñëw xaar ma fa bu ma ñëw ñu lay faf ma dem Dakaaru nga doog mu jógee Maroc ñëw woolu ma ñëw. te mu jox ma fan fan fan junni yi ne ma téye ko def def ko attendre poste xaar ma Dakar ñett fan yi su ñëwee ne waajal dagal bi nga boolaa sama taal bi nekk Gabon dem. ni ko yàlla def noonu la def ñëpp ndax dafa yéene ñëpp teraanga. bëgg a dimbali ñëpp bëggul kenn sonn dara de moom dama ne bu doon mbubb mu ñuy sol mën na ko sumi able ko la maye ko ndax yéen na ku ne nga mel ni moom ndax dara jëm lay jox ak fi mu lay teg ak ni muy bëgg nga mel ni loolu doo xam sax na lu tax loolu waaye noonu la ko yàlla bindee kon mu nekk baax koo xamante ne bii wax dëgg yàlla e baax mënut a weesu fi mu baax waaye nag yàlla fay na ko ndax ba mu fi nekkee it nit ñi yëg nañ ko dox nañ ko te yëg nañ ko te it dem na ba am ngërëmul yàlla ndax ngërëmul yàlla la ñëpp wut te am na ko te wax na ko ku gëmoon yàlla la ku ko doyloo woon la te loolu dafa jar xam ku bëggoon sëñ Tuubaa la nag ndax bëgg sëriñ ak àggoon na ci foo xam ne sëriñ Mbàkke nit mus a mën a toog ak moom di waxtaan sëñ te jox sowut jël bi lu ko jege woon la waaw ndax benn bis dañoo toog rek am ku ñëw indi xasida suba teel ma di ko bés nii ba ci àgg am ku fëgg yëngal bunt bi mu ne ma xool ko ma ubbi muy ku yor ay addiya ñëw nuyu ko ba noppi joxaale ko ay xasida ba mu demee sëñ bi yëkkati xasida yi ci xool yam ci mat la bu shifaa yi di ko jàng nag ba ci yàgg sëñ bi daal di daal di xoolal lii rek koo xam ne da mel ne yow ay awkaab jullit ñëpp fa innahum daal di wax ne fa innahum wa in asawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum laa taqdiru ala balaika li dox fin yasaru da jàng ba ci yàgg mu yiw waaye bi mu euh, jógee ci bëgg gi sëriñ Tuubaa tam nag fonk gi sëñ Modou Moustapha itam foo ko tekkoon da koo paase fonk gi sëñ Modou Moustapha sëñ bi sëñ Modou Moustapha mën nañu wax ne euh, sëñ Mbacke Soxna Lo ab idoolam la woon. sëñ sëñ yi itam bi mu ñëwee mu jël cofeel googu sëñ Modou Moustapha amoon ci moom delloo ko ko nag bëgg ko waaye ba loolu wéyee nag mu am kilifa nag kilifa gi mooy kan mooy sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma donc sëñ Mbacke Soxna Lo soo ko xoolee trajectoire am bëgg yàlla wóolu ko gëm ko bëgg ko. ba pare nag am fu mu teg cheikhul xadim kooku benn affaire la wëlbatiku nag am idole idole bi kan mooy sëñ Modou Moustapha ba tax na gan ñim sëñ Abdou am ñum fonk ñëpp sëñ Mbàkke lay woo wax ko mu teeru leen te toppatoo leen te teral leen ndax xam na ni itam ko xamoon teraanga la ba bi muy yónnee Guinée ca Cheikhou Touré gannaaw bu fi Cheikhou ñëwee ah moom la ca yónni sëriñ Moustapha Saliou ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo àndoon ca délégation ba euh, nit la woon koo xam ne daal ku mënoon a toppatoo nit la ku amoon respect ci doomu aadama la waaye su ne ñëwee ci Serigne Saliou mi ak Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne moo wut Serigne Abdou Lahad Serigne Abdou Lahad Serigne Abdou dafa fonkoon lool Serigne Mbacké Soxna Lo bëgg ko lool ku bëggoon Serigne Abdou Khadir la bis Serigne Abdou Khadir da ko ne danaa ñëw Taïf waaye ca yoon wa sëñ Modou Moussa daan jaar laay jaar loolu bi mu duggee nopp sëñ Mbàkke sëñ dane xam naa duma ko mën a tëlide diggante bi waaye danaa fexe danaa ko fàkk wala danaa ko rang-rang ba balaa sëñ Abdou Khadir ñëw mën a jaar ci yoon wu neex bi mu demee Taïf daa daal rëddu bâtiment boo xam ne moom sëñ Mbàkke dane sëñ Abdou du ñëw mukk ma di ko dalal ci bâtiment bu nit ma sa fanaan bâtiment bu bees muy bâtiment Raïs be ñu doon ko wax tamit bâtiment mu Cissé mm-hmm. yàlla dogal ci nammeelam ak coobareem keroog yëpp meuble yi français Italie jóge Italie ñëw Dakar ci guddi googu la sëñ Abdou Khadir nelaw bu bokk ci ay jikkoom nag yoo xamante ni ndaw ñi war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax mm-hmm. te mooy woyof mën a muñ yaatu tabe lewet gore dégg ndigal yi képp koo xam xam ne moom te jikko yooyu dong la ñuy la ñuy la ñuy tagge ab sang képp ku ñu ab sang nag te jikko yi négul ci yow ba ba nga xam ne ña la wër dañ lay nax jikko nag nit da koy ji ci boppam di ko suuxat jikko bañ nañ ko baatu wolof la jikko da koy ji di ko suuxat moo tax mu dunde ni mu ni mu dunde ndax sànq bi ma waxee ak wayaf wayaf gi feeñ na bu baax a baax ci ñi ko xam xëy na ñii seen ay photom walla ñu seen ko noonu rek muy dem mun ñu koo xam waaye ñu dund moom dañ xam ni col gi da ko taarale lislaam waaye ak woyof lay dund boo ko fekkee ci milieu ba famille fa mu ne mu solub karam bu perkaal wala mayluus da ngay jàpp ni kiñ la doon tegtal du kii mm-hmm. waaye bu ngeen jëflantee nga xam ni mooma dafa am bis sëriñ Mbàkke booba sëñ Cheikh nga fi sëñ Mbàkke demoon Madina ziyaare ji sëñ Mbàkke Madina ci jamonoy sëñ Cheikh jóge fa nag di ñibbi Taïf jaar njurul fekk sëriñ Saliou ci tool yi mook dong yi ñuy watt gerte sëñ Mbàkke ñëw nuyu sëriñ Saaliwu sëñ sëñ Saaliwu ne ko sëriñ de sama gerte gi dana dana ruggi ruggi ci ñi xamut ruggi mooy gerte goo xam ne biñ ko daataan déqi wow na ba boo koy déqi doom yu ci bari day des ci suuf nee na bi ko sëñ Saaliwu waxee loolu ne ko sëriñ de sama gerte gi dana ruggi sëñ Saaliwu sëñ Mbàkke da ko naa ah, mën naa bañ a ruggi de mu ne ko ah, nu may def ba du ruggi mu ne ko xanaa nga nga seppi sa loxo ci ci ci wattu gerte bii ngay watt yaa ak taalibe yi te dellu ci kër ga toog te dellu ci daara ja toog loolu daal boo ko defee daana mën a waatal ne du ruggi sëñ Saliou daal di raxas si loxoom ànd ak taalibe yi dellu ci kër ga sëñ Mbàkke daal dem Taïf dajale waa Taïf ñëpp ànd ak ñoom ñu ñëw liggéey liggéey ba ba mu sontu nga xam ne wax nañ ne keroog ba ñuy ba ñuy bu ñuy bu ñuy déqi ba mu guddi sëñ Mbàkke day taarub otoom dem ba ca kanam ñuy déqi taal lumière yi ñuy déq bi ak si fu moom mu arriéraat ba sori euh, taalaat lumière yi noonu la ñu doon déqee loolu moo taxoon foofu la liggéey bi tàmbalee woon. ndax bi mu koy def itam booba euh, suñu borom may na ko bayre bu xamante ne bii euh, maanaam xam na ni fenn daanaka hmm. ko war rek mooy mu ranger mu ñëbbi waaw mu agsee oto bu nuy wax Hyundai la dugg ku nuy wax Xaarim Njaay moo ko dawal bi mu agsee dafa wax ni ñibbisi naa bi mu koy wax dañ jàppoon ni sëñ bi dafa dafa bëgg du daf ñuy tooñ rek waaye lii mënu ko parce que ni ko ni ko ni ko jamono so tàllale loxo ni ko jamono soxlaa waaye mu njibisi rek dër ndax booba tayif amul yoon ci piste bi jaar ba agsi barki Sëñ Tuuba te boo agsee maanaam jàpp ni yaa ngi États-Unis wala yaa nga France wala yaa ngi ci barab bi mu lay dugal mbaa barab bi nga xamante ne bi moo koy fekk euh, te li tax bu def ko itam mm-hmm. l'islam rek la ko defal parce que euh, am na ci barab yoo xamante ne bi mus fa fanaan mm-hmm. def na ko liggéey ko ba mu mel melokaan woowu te mus ca fanaan waaw jàpp na ni nag li baax lislaama ko moom li gën lislaama ko moom liggéey ko itam liggéey nu nga xamante ne bii parce que àdduna nit day tabax dooram foo dugg baa mu sàkket baa mu barak baa mu sengi wërale picc day tagg jinax day gas fas dañ koy wuddal xar dañ koy géttal ginaar dañ koy ngudoon te dama la wax sànq ni la mhm. euh, ku wax feeñ ah, waaye jëf ku ko ku ko def yaa weer sa ci ni mel taxawaayu waajur yi feeñ na ci ci fiñ ko jaarale bëggug boppam muy jomam feeñ na ci te jom ba jom jeex mooy bañ a ñaaw rek kepp loolu dong la jom di tekki jom mooy bañ a ñaaw rek te génération bii mu dund boo ci doon wër moroomam da koy wàññi ci ay baaraam su fekkee da nga lem benn moo tax ma ñu jàkkeeru muus la man ngaa dajale junni muus doo ci am benn waaw tuuti ci kanam ak dundam boo koy waxtaanee da ngay defee ni aw lépp la bu fi jaaroon waaye dañ jàpp ni nit wërta man a mel noonu te fekk euh, lu mu incarné la di dox ba ba ba ca. waaye itam loolu moo doxoon diggam ak tarixa yëpp diggam ak Tiwaawoon diggam ak Ñaseen diggam ak diggam ak Laayeen yi yooyu yëpp teraanga yu bari bari yoo xam ne am na ci loo xam ne. lu nu xam la lu nu fekke la ndax bari na ci lu jaar ci suñu loxo loo xam ne ci ci ci loola la jëm lu tooti nag ci lu bari loo xam ne ci yeneen loxo la jaar mm-hmm. yoo xam ne dafa jëm ci ñooñu muy ay taranga yu mu doon séq seen diggante ñoom waaye amul kenn koo xam ne daana la jox ak li nangu nangu di metti ak loo doon doon su gor sëñ Mbàkke di la jox muy diis ci yow wala muy metti ci ndax ni mu koy jëfee maanaam dafa xarañoon ci joxe mm-hmm. ndax benn léeg-léeg su lay jox dara baat yam koy booleel xaf mu koy booleel waxtaan mu koy booleel ba bu la koy jox day woyof ba da ngaa day mujj mel sax ne yow daal loo ko dénkoon la ñëw di ko jël si wala muy dënk dul liggéeyal ba mu di la fay mhm. loola lew doom du metti benn yoon ci yow. wax ni sëñ Mbacke moo ëpp njariñ am nawet eh, ndax eh, ni ko suñ borom bindee mhm. nga xam ne noonu la doon dundee wax dëgg yàlla eh, wéet na ci torop. malaakam soxla la woon moo xamante ni nit dawul làggal soxla da koy rey ndax daa xàmme woon ñaar mooy dimbali nit ak faj soxla am na ci ma leen mbokk moo xamante ni daa soxla ñëw ci bokk yi comme ci waxal ni ko nag dama am yitte joo xam ne daal xaw na maa jaaxal kooku wax ni ko yitte ji moom sëriñ dong laa fi xam ci ko mën a faj waaw Sëñ fa Fatam sëñ Fallu mii ci lu ñu wax ko Sëñ Abdou Fatam ni ko yitte jooju moom sëriñ dong laa fi xam ci ko mën a faj mu ne ko sëriñ dama ko miinul mu ne ko lool du ci dara demal kooku ñëw tay wax ceeg sëñ bi sëñ bi jox ko lu ëpp yitte ja mu dikk moom it au lieu mu def ko ci yitte ja mu def ko ci yeneen yitte bay yitte ja ko taxoon a jóg bis muy waxtaanal ak sëñ Abdou Fatah ba tuddaat ko yitte ja sëñ Fatah ni ko xanaa demoon Taïf mu ko ah demoon naa fa kay ko joxoon na ma loo xam ne ëpp na yitte ja am ñeneen kii ma def ci mu ko dellu ah. mu ne ko ah sëñ joxoon na ma mu ne ko fàtte ko xamul ni ñëwoon nga fa sax te loolu mbokk ko seere naar moo ñëw ci moom ne ko sëñ bi ne man damay bëgg dama bëgg gëstu sëñ Modou Moussa te bëgg ku ma dimbali sëñ bi ne ko ne ko daal di wax sëñ bi ne ko it dama bëggoon nag dëkk yi mu sàncoon yëpp ak mag ñum jaxasoo loon teñ des fi fu ci ne bëgg naa faa dem laaj leen sëñ bi ne ko kon bu subaa ci waxtu sàngam nañ fi delsi bi naar bi jógee rek am na mbokkam mu toogoon fi moom ab taalube ma moo ma ko nettali fekkewu ma ko nee na ma ne sëñ bi naar bi du waxul dëgg xaalis rek la bëgg sëñ bi ne ma ne ko diw mu ne ko mbàkke mu ne ko loo ci xam-xam naa ci lu ko ëpp waaye nit ñëw wax la soxla na nga mën ko defal ko ko du mbaax warteef la bi da ko ne ñëw wax la soxla nga man ko defal ko ko du mbaax warteef la mu ne ko lu lu mbaax mu ne ko ak mbaax mooy nit ñëw wax la loo xam ne lim la wax wóor na la dara du ci dëgg lim la wax waxuma la xam gi nga xam ne du dëkk waaye da nga koo nëbbu ba xamut ne xam nga ne waxu dëgg nga xam ne su fa jógee naan doon naa sëñ bi da nga koo nëbbu ba xamut ne. xam nga ne waxut dëkk nee na mu ne ko loolu di baax fajal ko aajoom jooju xam nga ne du dëgg waaye faj nga ko te xamut sax ne moom day jàpp ne moom yow xamut ne xam nga ne waxut dëkk kooku ne ma ma jàpp ne fa la sëñ bi jam sëñ bi ne ma diw ma ne ko mbàkkee mu ne ma na ngeen def attention ci yool yool ab yool asawab maanaam nit ki bu jëfee lu baax ab yool la ca bëgg suñu borom fay ko sëñ bi ne ko na ngeen def attention ci yool ndax du ne foo defee lu baax rek yool daal di jóge fa mu nekkoon ñëw ci yow mi def lu baax sëñ Mbàkke nee na fa waxtu woo defee lu baax balaa yool ñëw ci yow mi def lu baax moom yool day jaar ci xelum ki nga defal lu baax def ci ci ki nga defal lu baax jaar ci xelam ne ko def ci xelam ne ko yàqal der ki la defal lu baax nee na kooka nga defal lu baax yàq tàmbalee yàq sab der bëgg dégg ko sëñ Mbàkke nee na waxtu woo ko déggee bane rek diw ak ma ko defal mu naa ma yool dellu fa mu jóge woon sëñ Mbàkke nee na ko yàq der nee na yàq der du jikkoom waaye yool a fa jaar xam nga léegi li xew ci jamono mooy koo dégg muy wax danaan man def lu baax juguma nga ne lu tax mu ne diw ba ma ko defee lu baax lu bon la ma fayee waaw yoo la fa jaar yoo la fa jaar moo tax sëñ Mbàkke daan sécuriser ay jëfam moo tax bi mu joxee naar bi oto naar bi dem am trois mois dellu si na ko bëgguma bii lago naa laa bëgg sëñ Mbàkke mën naa gis boppam waaye boobaa yoolu dellu fu mu jóge woon ba mu ko ko waxee néewut kii daf maa yëpp néewut kii dafa réew dana naar bi da am na fulla ak ah kon booy bu ñu lijjantal comme lago waaye bu fa nekkoon naan naar bi li ma ko defal ma jox ko oto mu naan nangam rek yool dellu fa mu jóge